asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi diine wooteeti na l'islam xewleeti na yoonu murit amatina bés ci ndigalul sëriñ muntaxa mbàkke basiru xalifa général des mourides yàlla fi yàgg lool mbàkke tànd ku gwér ci kilif téefu sëriñ abo mbàkke fàllilu xalifab cheikh mohamed fadel mbàkke xaadim rasul ak mbooleem njabootug sëriñ fallu mbàkke gi yépp sëriñ cheikh umi mbàkke fàllilu mu baax mi moo dellu si waat àndaat ak fédération des daayiratu salaam di yëgal ñëpp ak di woo ñëpp ci treizième édition bëccëg bi ñuy def at mu nekk jagleel cheikh mohamed fadel mbàkke radiallahu taala anhu dimanche lay doon fukki fan ak juróom ci weeru septembre atum 2019 bu 10 heures ci suba jotee ca grand théâtre bu ndakaaru journée culturelle et religieuse bu ren ji ñu dara ko radiallahu taala anhu sëriñ abdou samad mbàkke ibn xaadim rasul dinañu fa delloo njukkaliit radiallahu taala anhu sëriñ cheikh mbàkke daaru rahman radiallahu taala anhu sëriñ afiye ñang radiallahu taala anhu mu sëriñ di doon ci présence effective bu soxna mam doon ci suuloo patronage ba monsieur Thierno Ndomba président mouvement Pikine ci la bokk invité d'honneur yi son excellence monsieur Macky Sall président de la république bu Sénégal soxna Mariam Sall première dame bu Sénégal monsieur Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur monsieur Abdoulaye Daouda ministre des finances et du budget monsieur Abdoulaye Diouf ministre de la santé et de l'action sociale monsieur Dame Diop ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat monsieur Moustapha Diop ministre du développement industriel et des petites et moyennes entreprises docteur Cheikh ministre en charge du suivi maître Oumar Youm ministre des infrastructures terrestres et du désenclavement monsieur Amadou Ba ministre des affaires étrangères monsieur Abdoulaye Diop ministre de la culture et de la communication docteur Augustin ministre directeur de cabinet du président de la République monsieur Abdoulaye Timbo maire de la ville de Pikine monsieur Amadou Diarra maire bu Pikine Nord monsieur le ministre Pape Gorgui maire Pikine Est monsieur Ibrahima Sall directeur général SICAP SA Serigne Khadim Lo Gaydel mu Serigne Modou Gueye directeur général Clean Oil monsieur Khadim Diokhane directeur général Ndindi distribution m Mamadou Seck directeur général MS distribution monsieur Mamour Ndaw directeur général Touba m monsieur Andaw Ndiaye Pikine monsieur Cheikh Malick Sène mu Serigne Cheikh Oumy colonel Mouhamadou Bamba Sall douane Cheikh Goumbala opérateur économique colonel Lamine Sarr douane monsieur Mamadou Gueye président mouvement Neneen El Hadji Mbakiou Faye représentant Serigne Touba ci Ndakaaru Serigne Modou Thiane représentant ci Ndakaaru El Hadji Gora représentant Khadim Diagne mu Cheikh Yacine Doucouré monsieur Oumar Sagna directeur agriculture monsieur Mamadou Libas chargé de mission monsieur Ousmane Kane opérateur économique ca Gabon monsieur Thierno Bokar Kane parti de la République Tchadibi monsieur Dan Thiam Guinée-Bissau monsieur Tamsir Thiam di opérateur économique Moustapha Fall di opérateur économique Mame Binta Diop Italie Mbayane Ndiaye commerçante ca marché HLM Abdou Salam président mouvement nay leer ca Jidda Caaroy Kaw docteur Lamine Diouf ca Pikine sëriñ maire bu Kaolack honorable député madame Salima Korea Pikine madame Mbacké Sophie Ndiaye Sissoko fonds de développement du service universel télécommunication soxna Ñaaña Ndiaye première adjointe au maire de Pikine Nord soxna Soda Ndiaye responsable politique APR ca Pikine soxna Adja Mari Niang ca marché Kermel soxna Maymouna Ba cité Alioune Sow soxna Ana Ngom ca Gabon soxna Aïcha Dieng mu Cheikh Moustapha Sène soxna Aba Gueye ak soxna Nday Roxey Khady Ndiaye ca Espagne Serigne Mara Lay di opérateur économique Assane Balbastik directeur général d'Efinitix Diamniadio dimanche lay doon 15 septembre 2019 à partir de 10 heures ca Grand Théâtre bu Dakar képp ku ci yittewoo yeneen i leeral jokkool ak comité de pilotage bu journée bi ci 77 558 09 15 77 558 09 15 bés bi képp ku fa teew yàlla yàlla guddal saw fan yokk say xéewal ci barkeb Serigne Fall ak Serigne Abdou Samad